kenn mënatu koo def kenn dootuñu autoriser daanaka benn manifestation pour opposition wala pour société civile bi euh, loolu nag wax dëgg yàlla loolu recul démocratique la ak recul sur les libertés bu rëy rëy rëy boo xam ne indi na daal yëg-yëg bu méttee métti ci ne Sénégal mi ngi deltu ginnaaw ci wàllu liberté ak démocratie te loolu lañ ko gënoon a nawee ndax Sénégal réew mu ndaw la soo ko méngale ak yeneen réew yi waaye ginnaaw dafa ràññiku ci Afrique ci démocratie ci liberté ci nit ñi mën a wax seeni xalaat mën a wax seeni gis-gis te loolu lépp ñu nërmeel ko léegi ku wax da ngay seetlu li ngay wax mbaa ñu jël si la ñiñ tëj ci kaso bi kenn xamul nu mu toll ci ay ndaw ñoo xam ne ay post Facebook lañu def ñoo xam ne dañoo wax seen xalaat ñoo xam ne dañoo wax seeni gis-gis yu ndaw yoo xam ne kenn mësta xalaat ne des na ci mën a téye nit te léegi ñu ci teye ay junni junni nit euh, ba tey itam manifestation kenn mënatu koo def te tey jii moo ci mujj tey jii manifestation pacifique la nit ñi woote woon ngir xeex lii fi président euh, taxawal muy reculer muy dàq élection yi loolu kenn mayu mayu ko kenn ba nit ñaa ngi pousse na nit ñi ci ñu def ay violence kon daal ci gàttal ci tënk euh, yëg-yëg boobu moom yëg-yëgu tiis la bu méttee métti ci xol la en tant que citoyen gis ne réew mii ñu bokk demoon ba am réputation demoon ba am aw way wu rafet ci démocratie ak liberté ak état de droit ak euh, liberté d'opinion ñu dem a dem ba yooyu yëpp màbbu ba daanaka dara dara desatu ci loolu lu naqari ci xol la en tant que citoyen waaye lu naqari ci xol la en tant que taalibe taalibe Serigne Touba ndax yu bëree bëri yu ñuy def euh, sëriñ bi malheureusement dañ ko ci jéem a këll ci anam goo xam ne kuy taalibe da lay naqari taalibe yi dañuy am lu leen metti lool. ci homme politique yi ni ñuy def nga xam ne suñ soxlaa sëriñ bi euh, ami jafe-jafe wala ami problème wala ñu am lu ñu yittewoo ñu jéem a ñëw fexe ba sëriñ bi intervenir sëriñ bi wax wala sëriñ bi euh, def loo xam ne dana dekk médiation 2021 misaal la ci euh, ku ne xam na ne manifestation yu taratar moo amoon ñu bëree bëri faatu ci sëriñ bi wax ba ndox mu sedd am ci ku ne xam na ne ñaari nit ñoo doon jàmmaarloo euh, Ousmane Sonko opposition bi ci misaal wala euh, président Macky Sall ak ñi mu àndal ku ne xam ne demoon nañ ñoom ba néew doole côté euh, pouvoir bi ba mu jate lool waaye ñu gis ne sëriñ bi moom bi mu wootee jàmm te booba ñëpp a ko bëgg nañ ko fàttali. ndax Ousmane sonk ci boppam euh, avant sëriñ bi def médiation waxoon na ne xale yi buñ dem pale di génne président Macky Sall ndax suñ ko defee armée bi mën nañu jël pouvoir ñëpp ñàkk ndax armée bi moom ki suñu xasee jël pouvoir kenn dootu xam kañ lañ koy bàyyee loolu kon intérim la woon sëñ bi def médiation waaye ñi doon bëgg ñàkk pouvoir bi seen intérêt sëñ bi def médiation ñoo ci sax gënoon na ñoo ko gënoon sax yittewoo population Sénégal bi nga xam ne itam jàmm la ak dal lañ bëggoon it loolu seen intérêt la woon sëñ bi kon def loo xam ne intérêt généralu du Sénégal la te opposition bi effectivement taxawoon ci taxawaay bu rafet ndax wax sëñ bi ne ko ñun doo du ñuy ñooy ñaan ñooy digal ñu def la nangul ko li sëñ bi wax sëñ bi itam nag ñaan keneen ki ki ñu seqal muy le pouvoir malheureusement lañ ko may lu néew la par rapport ak li opposition bi bëggoon ñu def ko ku ne xam na ne sëriñ bi moom amul obligation de résultat dama koy fàttali moom lim man mooy ñaan ndax amul du institution boo xam ne constitution bi waajal na ko du koo xam ne dañ koy voteel budget muy def médiation du koo xam ne dañ ko jox benn moyen ngir mu indi jàmm xëy na yàllaa ko jox ak population ak taalibe yi ñoo ko jox gëdd goo xam ne tax na mu am euh, dayob mën a def loolu ak volontairement rek la koy defee waaye amu ci obligation de résultat ndax su dee état rek institution am na médiature de la république ay milliards lañ koy woote ci budget par an par at mu jot mu ñu tabb fa ay nit ñu am ay personnel ami locaux ami siège ak yëpp te ñooñu su jafe-jafe amee dëgg dañ leen fay bàyyi bëgg ñëw ci ki nga xam ne moom du institution voté luñ ko budget amul personnel euh, constitution réew mi waajalu ko dara ci benn rôle bu mu war a joué ci dara kon nag. loolu day wane ne euh, sëñ bi luñ ko ci wax tooñ ko ndax am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne sëñ bi dafa téye loxo yi opposition bi bañ jekkoo te léegi mu bàyyi ñu leen di dóor loolu wax bu yàqu la ndax ku ne xam na ne ni ma ko fàttalee du sëñ bi moo euh, du sëñ bi kese kese moo soxla woon wala bokk pouvoir bi moo soxla woon médiation sëriñ bi waaye ñëpp a ko soxla woon jamono yooyu. li ci am nag mooy sëñ bi moom waru garam lay def ndax kenn ku ne dana wax ak yow kenn ku ne dana la dana médiation mooy da ngay wax ak kii wax ak kii euh, li ñu war a xool nag mooy ki nangulul sëñ bi moom nañ ko indexé nañ ko joxañ baaraamu waaye buñ joxañ baaraamu tuuma sëriñ bi ndax sëriñ bi amul obligation ci ne kii par force da koy da koy forcer ci mu def nangam déedéet daf koy ñaan daf koy dafay diisoog moom da koy wax ngir mu def li nga xam ne mooy indi jàmm kon daal euh, loolu mooy li ci nekk malheureusement nag nit ñu baree bari dañuy wëlbatiku di dal ci kaw sëriñ bi te li ko yóbbee sëriñ li ko yóbbee sëriñ bi mooy ñi nga xam ne suñ amee problème ñëw ci sëriñ bi ngir mu indi jàmm ñoom ñoo ko dul sagal ci di nangoo bàyyi dara ndax wàllu politique wàllu xëccoo faw nit ki nangoo bàyyi dara ngir jàmm am ngir mën a am juste milieu ngir mën a am terrain d'entente Euh, te ku ne xam na ne 2021 médiation bi sëriñ bi defoon su fekkonte ne président ci jamono yooyu dafa woote dialogue booba c'est sûr que Ousmane Sonko dana ci ànd ndax sëñ bee rekk garantie bi c'est sûr que ñi ci des ñëpp danañ wuy si su ko defee danañ mën a waxtaane réew mi booba ba jafe-jafe yu baree bari yi ci topp duñ ko am malheureusement defuñ ko dañoo dem mel na dañoo nax sëñ bi wala nax population yi ba da dal am nax opposition bi ba dal am ñu dem gën a ngànnaayu gën a wut doole ngir rek euh, su manifestation amee ñu gën ko mën a reprimer waaye sukkandiku wuñ ci li ñu amoon ci ay atu ak levier ci sëriñ bi ngir mën a indi jàmm te suñ ko defoon boobu muy dialogue dem nañ ñaari at ñetti at ci ginnaaw ñu soog a woote dialogue mooy dialogue bi passé nga xam ne ñu bari nanguwu ñoo dem ñu bari jàpp nañ ay naxe la ba li ci juddoo gis nañ ko tey mooy dem nañ ba élection yi des ay fan campagne bi ubbi ñu ñu ne dàq nañ ko kon daal loolu itam yëg-yëgu xol la ci en tant que taalibe ci sëriñ bi ñuy jéem a këll-këllee te li ci mujj mooy bi ñu dàqee élection yi euh, ca suba ga dañ fay yónni ñaari ministre mm, nee nañ gisee nañu sëriñ bi euh, dëgg la xamuñ exactement lu leen sëriñ bi wax ñii nee nañ sëriñ bi daleen leen daa gàntu report bi ñii nee nañ sëriñ bi gàntuwu ko waaye lu mën a xew xamuñ luñ fa jëlee waaye loolu optique bi rek euh, ci yëg-yëg bi nga doon laaj ci en tant que taalibe mooy dafa mel ne ñun taalibe yi li ñuy yëg mooy euh, sëriñ bi léeg-léeg homme politique yenn yi dañuy jéem a mbubboo sëriñ bi ngir seeni jëf ñu mën ko justifier nañ fàttaliku Pape Diop euh, biñ ko fi falee député assemblée nationale ci élection législative yi passé benn poste am boobu benn euh, poste député am boobu daanaka moo nekkoon ci balance diggante pouvoir ak opposition moom dafa xëy xëy ñëw ci sëriñ bi. gisee ak moom photo sa suba ga mu xëy ne day day fekki euh, groupe benn Bokk Yaakaar fekk ne président. ñëpp jàpp ne dafa war opposition bi dañ ko fal en tant que opposant mu xëy euh, et cetera loolu li muy wane day mel ne dafa ñëwoon ci sëriñ bi ngir laaj ndigal mm-hmm. wala ngir tàgg ko wala ngir ne lim def sëñ bee ko ko digal alors que loolu lépp ay stratégie yu homme politique yi def la ngir taqal sëriñ bi ngir luñ def rek bëgg ko justifier ne ah man taalibe laa sëñ bee ma ko digal wala nangam lu demee noonu naxa yu mel noonu wax dëgg yàlla mooy mën a mooy nuru lu feeñaat ci lii. muy bi ñu reporté élection yi di fi yónni ay ministre ñu fotowu nit ñi yëg ko mu ay rumeur loolu fi ne ñu baree bari ñoom ñu bëggoon a dawal comme rumeur mooy sëriñ bi daal na ci. ndax dañoo dafa bëgg Karim ay candidat am dafa bëgg Karim bokk alors que sëñ bi amul candidat yàgg naa ko leeral sëriñ bi amul candidat sëriñ bi dafa tëdd njaaxaanaay intérêt général réew mi ko yitteel te ku wedd lii may wax dellul ci waxi sëñ Bassirou Abdou Khadir porte parole bi mu waxee ne sëñ bi nee na ci wàllu politique nañ ko may kuy siyaare yi ma kuy siyaare seek ñaan lu moom en tant que taalibe wala euh, en tant que am di jàmm mën ngaa ñëw euh, waaye nag ñëw di wax waxi politique wala di politique wala di Euh, mel ni kuy campagne loolu moom sëñ bi nañ ko ci jéggal d'ailleurs day fatu sax ndax bi mu jógee Porokhane dafa fatu kon euh, bëgg wan nit ñi génne ay rumeur wala def ay visite te defoo déclaration waaye yaa ngi dawal ay rumeur wane ne sëñ bi kat ànd na ci lii ndax lii ndax lii loolu euh, mooy mooy mooy naxay politiciens yenn yi te loolu wax dëgg yàlla euh, lu metti taalibe la xam nañ ko te nit ñi defatuñ léegi nit ñi wax dëgg yàlla ñu yewoo yew lañ léegi lu nit def rek bala nga caa noppi xam nañ li la ko tax a def kon euh, xeeti naxa yooyu wax dëgg yàlla moom it euh, ñuy këll-këllee sëñ bi te sëñ bi ku ne xam na at yi mu toll ku ne xam na fi mu toll ci boroomam ku ne xam na fi mu toll ci bëgg lu baax bëggal ko nit ñi yamale ñëpp nag ubbil buntam ñëpp kon kenn du ko jéem a xëcc di ko yóbbu ci ay parparloo naan diwee candidat ba wala diwee candidat am sëñ bi nekkul foofu nekkul ci ay parparloo yooyu loolu daal yaakaar naa yëg-yëg la moom it bu metti par rapport ak yëg-yëg yëg-yëg bi ma wax léegi ci wàllu citoyenneté waaye par rapport ak yëg-yëg en tant que talibé mm. mooy moom it yëg-yëg bu metti la daal ci tolluwaayu réew mi ci côté boobu suñ jërëjëf macha allah introduction bi baax na moo taxoon ma ne la xam naa ne faaw loolu yëg-yëg lay doon ci yow rawatina bii ñu bokk sax muy bu yoonu murit nga xam ne ku toll ni sëriñ bi bu dul woon eh, ni mu demee ci sëriñ beeg jaamu yàlla di mag rek war nañ koo jox war ma waaye loolu lépp waaye sëñ bi li ci xaw a ñuul nii te nga junj ko te war koo kii sëñ bi sëñ porte parole bi dafa def déclaration te sëriñ bi nee na nan ko may politique bi nan ko may nan ko génn sax ci dëkk bi ba loolu lépp ñu ko Euh, candidat yi dikkoon di ko kalaamee affaire parrainage bi ca Porokhane da leen ne loolu na ngeen ko dem lijjanti seen mbiru bopp la seen mbiru àdduna la bi ci desaat mooy lii nga wax nga mujj a wax ne biñ ne sëñ bi day fatu ba noppi ministère yi ñëw fii te gisuñu benn déclaration li ci gën a yéeme sax yow sëñ bi Jibril Ndaw moo def benn publication wala benn déclaration ne sëñ bi d'accordul ci nan kii ne loolu nag dama xamul da nga koy wéral wala wéraloo ko ak li ma la wax lan nga ciy tontu. waaw xam naa li may li may njëkk mooy loolu nga wax ci déclaration Djibril Ndaw boobu keroog bi mu koy déclaré man bokkoon naa ñi mu invité woon ci émission euh, dëgg la actualité dañoo dab ñu doon waxtaanee euh, ñu waxtaanee ko waaye loolu taxuñu woon a jóg sax nag wax dëgg yàlla ndax programme woon nañu émission bu yàgg euh, wax dëgg yàlla man bi mu ko waxee damaa jàpp ne dafa am source yu leer en tant que journaliste. Mm-hmm. ndax journaliste ndax man bi may intervenir mi ngi ci téléphone am di dégg di am ku muy waxal. Euh, kenn ci ñun saa yi wax ñun invité yi léeg-léeg mu nekk ci téléphone am di am ñu muy waxal et cetera journaliste noonu lay def journaliste day day day day nekk ku attentif ci xibaar yi ak ay sources ak ñu koy mën a wax ay information waaye nag wax dëgg yàlla mënumaa confirmer wala infirmer ndax euh, awma ci lu leer ndax ca ca ca ca plateau bi rek man bi ma laajee dama ne euh, dégg naa ministre yi ñëw nañ fi waaye nag xawma ñu fa lu ñu fa wax ak lu ñu fa jëlee waaye man sama préoccupation rek mooy nañ bàyyi utiliser sëriñ bi euh, ci yu mel noonu euh, def dara ba noppi ñëw mel ne ku ko ci dugal wala ku ko ci taqal wala kuy wane ne ànd na ci loolu loolu man de manière générale dama koy dàq euh, su dee nag ñoom ñëw gi ñu fi ñëw man jàpp naa ne sëñ bi effectivement su nee nañ ko may. ci wàllu politique bi ci wàllu kii. dëgg la xëy na waxoon wax nañ ne itam euh, sëñ Cheikh Abdou Latif wax na ko bi muy waaj a dem Poroxaan ne sëñ bi kat li mu waxoon ne mi ngi koy gën a leeral mooy moom mënta tëjal buntam nit ñi mm-hmm. ndax nit ñee ko fi bàyyi mm-hmm. mënta tëjal buntam taalibe yi mënta tëjal buntam intere général réew mi mm-hmm. kon euh, ku ñëw daal li muy bañ mooy ñëw di fi wax waxi politique ak di ko jéem a dugal ci politique partisane ak di ko jéem a féetaloo fenn loolu loolu moom moom moom lay bañ Euh, dëgg la bi li nga wax ci opposition bi muy recalé yi bi ñëwee ci sëriñ bi euh, ni muy amee ci kilifa yi rek léeg-léeg kilifa mën naa toog euh, nit wax mu ne diw tontul ma man jàpp naa ne ton tontu ba ak waxeen wa gëw ma ne sëñ bee ko waxe noonu wala moo ko bëggee noonu ndax sëñ sëñ sëñ Cheikh Mamadou Mountakha ku ne xam na ko ci maslaa ku ne xam na ko ci du beccingal kenn du woyofal woyofalal kenn yitteem même su ca mënul dara sax au moins dana leen dégg naa li nga wax waaw ku ne xam na ne xëy na lañ fa indi woon lu jafe woon ci moom la ndax loo xam ne conseil constitutionnel la ko war a tranché affaire institution ñu bëgg ko cee dugal moom loolu lu jafe woon la ci moom mu mën cee àddu waaye nag jàpp naa ne eh, eh, sëñ bi su waxaloon bopp moom ci sama gis-gis loolu moom sama opinion personnelle rek la xëy na ton ba ak waxeen wa mu mel ne ku leen xaw a jànni leen xaw a kii loolu gëw ma ne sëñ bi moom dana ko waxee noonu. Mm-hmm. Euh, waaye daal man sama analyse personnelle moom mooy mm-hmm. euh, sëñ bi moom moom de manière générale ku muy waxal ak koo mën a doon mm-hmm. respect ba mu laaj euh, sa yitte du la ko xeebal. du la mel du la du la du la du la jànni sëñ bi moom du jànnee ku ubbeeku la ci wax dëgg yàlla xalaat ak waxtaan même soo ko. su soumettre mbir moo xam ne xëy na mënu koo mënu koo faj itam faaw dana la dana la wax ne dégg naa ko danaa ci jéem lu ma man wala boog danaa danaa xool wala lu demee noonu man jàpp naa ne tontu bi xëy na euh, lu spontané la xëy na nag euh, waaye daal man li ma jàpp moom mooy de manière générale mu Muntaxa moom nii la mel moom moom nit ku ubbeeku la nit ku yaatu la koo xam ne euh, nit ku tëddee njaaxaanaay la nekkul ci ay loo nekkul ci politique par parparloo Euh, te ku ñëw ci moom ubbil na buntam ñëpp ku ñëw ci moom it dana la dana la dalal wax la wax la la mu war a wax ak yow te lépp dana nekk ci respe ak ak ak ak wegeel euh, ni ko li ko nit ñi jox moom lu ëpp la leen di gën a delloo sax li mu wax waxoon ne euh, seen mbokk julli yi suñ leen nuyoog benn loxo yéen jox leen leen ñaari loxo sëñ bi moom noonu lay jafe